mbokku turfis yi yéen ñi nga xam ni yéenay seetaan Sangomar euh, course hippique nag dafa am naqar boo nga xam ne vraiment dal na ci suñu kaw muy Moussa Diop di amateur course bu mag dëkkoon ci Tëngéej ñu doon ko wax jóob soo ko sim dafa génn àdduna ñu di ko ñaanal yàlla woyofal suuf ci kawam di ñaanal waa këram itam yàlla may leen xolub muñ waaye nag ñu ñàkk itam ca Louga. benn amateur bu mag moom itam ñu di ko wax alaaji Ablaye Seck kooku nag ñu ngi koy jaalee xaritam di Mor Thiam casque di ko jaalee g course hippique di ko jaalee amateuru senegaal yépp kon sunu ñaar ñooñu nga xam ne ñooñu won ginnaaw yal na yàlla woyofal ci suuf ci seen kaw te yu mel noonu nag gëj fii ndax vraiment famille course yaatuwul Euh, ñu ngi xamalit seeni fami ne naqaru wi ñun ñëpp ñu ngi koy bokk ak ñoom di leen ñaanal àjjana ya gën a kowe seen Sangomar nag mi ngi noonu. yéen a ko moom kenn du buur kon noppi leen nanu rafet njort sunu bëggee am baraka law la cat yéen soppee jàppul bàyyi ndax ànd bi yàgg na lool. ngërëm ñeel na biddéew njàmbur mi jóge diwaanu professeur Bao yàlla baax na moom mi nu jox rasuul ak lingeer bi di Khadija ci ñoom ku ci ñàkk gore ndax yàllaay dogal bés ñëw na alfat teew ku ko weddi ubbil téere bu sell bi ki borom bi defal koom ngelawaay bul ko yéene bon taal bu yàlla taal bul ko jéem a fay sànni ca sas mat xamb ko mu génne la ci lëndëm tàbbal la ci leer képp ku toog ca keppaaru garab ya ca daare salaam di nga yéemu ci sëriñ saxiir am ndax tasul yaakaar kon nee leen kaar lii yàllaa ko def jërëjëf Abdallah euh, léegi nag lii lépp nga def ko pour amateurs yi te course moom kenn gisu ko fenn janvier lañ daan ubbi tey ñu ni février nan nga leen loolu yéen borom fas yi. ah leen de laa ci mën a wax euh, Maxtaar Olof Njaay dafa ne ku amul yaay nàmp maam ah ndegam gisuñu fas ñu ngànk bal bi rek waaw. ñi bëggul lu dul fas te waxuñu ci bal dara. ñooñu ñoom lu ñuy def. lenn xam naa ko ku ŋànkul bal bi jommi rek ngay def. ñu war a ubbi février mars avril mais juin juillet ñu tëj dawal juróomi weer te daan dawal juróom ñaar noo gisee a ah, mu di lu doy waar. Euh, ndax euh, soo xoolee bu CNG euh, bu CNG làmb ubbee. ñu ne football kat yaa ngi def seen liggéey ñu ne ñay def basket ñi ngi def seen liggéey ñay def volley ñi ngi def seen liggéey ak bépp xeetu tàggat yaram dama gisul lu tax ñun ñi borom fas yi duñu dawal suñuy fas. mais yow amul daraloo yaakaar ni moom moo tax euh, dawal bi doxul. a ah, maanaam doxul maanaam lu tax ñu léegi. mënuma cee wax dara ndaxte ñu ñi ci mën a firndeel li ñu mën a wax ci mbir moom mooy waa CNG. Mm-hmm. waa mais waaw te ñun bokkuñ ci comité bi ñun xam mënuñ ci wax lenn waaw. xam ngeen ni daal daawul am am na. léegi nag nan ngeen ko jàngate fas yéene dundal fas yi juillet ba février ngeen di doog a dawal te lépp ci poos yi lay jóge loolu day maxtaar euh, wax ci dina metti lool ndaxte. waxuma la sax fas yi rek waaye ñi nga xam ni ñooy euh, palefreniers yi jockey yi ak entraîneurs yi seen bër bi gudd na lool ndaxte boo ko seetee bu bër bi dayee lu toll ak juróom-ñaari weer nga dawal ñeenti weer wala juróomi weer xaw ma nu ñuy def ak seen njaboot ak seen i waajur ok. ah xanaa sa kàddu yu mujj rek ndax vraiment boo jógee ba ñëw fii itam am na loo nga xam ni xëy na. dencoon nga ko bi ngay ñëw di ñu wut si. waaw li ma bëgg wax foofu mooy euh, xëy na lu mu daan wax sax waaye tey naax ci sama nijaay di professeur Sakhir Thiam euh, ump la ni 8 décembre bii ñu génn demoon nañu Ndioum jëlee fa benn distinction boo xam ni président Macky Sall moo ko décoré euh, loolu ñu ngi ko ko sargalee lu jëm ci classification bi te classification Makhtar dafa loo xam ne Sénégal waroon na ko def yàgg na maxte moom mi professeur yàgg na ko wax mais kenn bëggu ci woon déglu tey yay na ñëpp ndax classification bi tey génn na Sénégal ci dawlin boo xam ni moom lañ doon def te gënul woon ndaxte ñi ngi doon nattee fas yi ci seen guddaay mbaa ci seen gàttaay mais kenn natt leen woon ci seen gaawaay te boo gisee ñu ne fasu course fasu rawante lenn ak lañ ca namm mooy bu gaaw ba loolu rek lañ ci namm gaawaay ba fas bu gaaw la ñu bëgg te niñ ngeen di nattee léegi nii moo lay wan ne léegi mbir mi changé na ndaxte fas bi lu mu gën a gaaw yow mi koy jaay am sa fas bëgg ko jaay di nga mën a peese njëgam ñaata lay mën a nekk te boo xoolee ni classification bi njëriñ li mu am 2013 bii ñu weesu Daara Salaam war na ko ñëpp mu amoon ñetti at te fekki ay naaru góor mu duma ñëpp toog seen kaw mais nag ab Abdallah waxtaan wax dëgg ci la classification bi ñenn ñi dañu ni baax na ñenn ñi ni baaxul boobaak léegi nag xamaguñu ñi ni baax na ak ñi ni baaxul lu ci ëpp mais gis nañu ni waa àll bi moom classification bi disqualifié na leen ci course loolu nag aussi am njàngat la. jërëjëf Makhtar euh, xam nga bu ñuy wax course dañuy bëgg di jëm kanam. jëm kanam nag mooy jóge nañu ci xeet fas yu xam ni ay demi cent lañu lu ñuy ak ak lu ñu ci teg trois quarts teg ci sept huitième teg ci quinze seizième ba egg ba près du cent course moo ni demee da ngay mën a bokk wala mënoo bokk mën a bokk mooy nga am les moyens ba pare mu jaral la ko nag parce que mënuñu jóge ci deux chevaux di wuti Ferrari delluwaat ci deux chevaux mënu nekk demi cent dinañ am foo xam fu ñu ko toll trois quarts mooy ñëw daw bu trois quarts yi bëree demi yi dinañu am problème parce que boobaa pour ñu mën a bokk ci rawante bi dina leen jafe daañu teggi jël toll jëmmi jamono joo xam ne tamit sept huitième daañu ëpp ba trois quarts am problème te loolu nag mooy jëmale course kanam la ma la waxoon. kon am na benn promoteur bu ni day dawal ay course demi cent loolu nag dinañ ci invité sax ñeneen ci kanam parce que bari na luñ ciy dégg ci suuf euh, mais yow loolu yow nan nga ko gisee course demi cent. Euh, di nga baal na ma taar waaye domaine boobu ma dama cee buggul avancé ndax ministère de l'élevage mi ñu dénk loolu ñoom ñoo am sañ-sañu wax ci waaw loolu mooy sama kàddu foofu waaw kay mais classification ma taar ñu delluwaat ci ñun Sénégal tey bu ñu bëggee tey ne dañoo bëgg a bokk ci yenn jongante yi lu weesu Sénégal mën a joganteeg moo xam ak waa Maghrib moo am Tunisie groupe de valeur ma ngay ñëw Tunisie boo bëggee bokk ak ñoom ay mbir bëgg bokk ak Maroc bëgg bokk ak Afrique du Sud même en Europe même en Europe nga dawal classification c'est la norme internationale jóge nañu ci mbiru mbayaar par ay mool bu gudd mool bu gàtt loolu Sénégal dong la hmm. bu ñu bëggee nag ñun ne dañuy bokk ci yeneeni courses yoo xam ni c'est à l'échelle internationale faw ñu taxaw classification classification dafa am nag des inconvénients mooy ka xam ne bëgg nga bokk faw nga ànd ak li classification bi laaj classification bi képp koo am demi boo bëggee dawal nga wóolu ko indi ko mu dawal mu daw waaye nag mënuñu dellu ginnaaw parce que lii njëriñu Sénégal la te ma wax la leen nag professeur dañ ko war a delloo njukkal encore tey ma waxaat la ko classification bi Sénégal ba mu ko bëggee ab tubaab lañ ko dénkoon ngir mu liggéey ci waaye tubaab bi dem na ba mu gi xamul nu muy defaree classification bi waaye autorité ñoo dellu ñëw ne jox leen mbir mi Serigne Sakhir Thiam. voilà loolu sax doon naa ko bëgg wax mais euh, dama gis ni moom mu nekk boroom fas ba pare ñu jox ko classification bi ni ko defar ko mais gis naa nit bi mu ko defaree dem nañu ba ci biir. Euh, classification bi sax bu dee am na ko muy gaañ moom la gën a gaañ kon foofu euh, xam naa ni amu ci woon lenn lu muy seet xanaa nga yeggale li nga doon wax ñu jàll ci benn amateur. jërëjëf euh, da nga dog sax Matar waaye gis nga classification fi nga ñëwoon wax ni falaa doon jëm sa professeur ba mu jëlee defar classification bi jox ko nguur gi delloo ko ministère de l'élevage dërëm bi gën a tuuti laaju leen ko ko lu waral loolu moom li mu namm mooy. na pomi làmboo yërmande na pomi làmboo fair play mooy maanaam li ñuy wax ci olof euh, euh, naka laa ko mën a waxee sax maanaam boo waxee fair play rek mooy maanaam moom nangu na dugg lu mu ci am loolu la lu ci keneen am loolu la waaye fas yi na am ñoom ñëpp seen valeur bi ñuy wax naanu mën a daw nañ leen natt boo jógee deux ans nga dem trois ans soo jógee 3 ans nag foofu la ñu sama tàmbalee wax nag kuréel yi nag kuréel benn kuréel ñaar kuréel ñett mooy groupe 1 groupe 2 groupe 3 foofu la ñu commencé nag di def nag seeni yéeg ñiy wàcc ñiy wàcc ñi yéeg parce que loolu mooy mën a may chance ñu bëri looloo waral tey jii classification bi ñu bëri tey ñoo xam ni kenn daal woon boole ci ci ci classement yi du ñu am premier du ñu am deuxième du ñu am troisième du ñu am quatrième waaye tey ngi commencé di ngànk ci enveloppe loolu nag nañ ko ko santé bu ndax moom dafa gëm ni fair play moom mooy tax ñu mën a wax ni dañuy mën a jëmale mbir yi kanam moom defalul mbir yi pour boppam te bi classification bi ñëwee ak ñoo bëriwul ñu jógoon taxaw ñu ne professeur de lii mu def nii da ko yattal boppam. tey yattalu ko boppam wan na leen ko tey. tey fas yoo yaakaarul woon ni dañuy raw tey ñu ngi am ay ay ngeen classement yu baax. mais nag da nga yër yërmande fair play te ñu gis xaale bu ñëw jëndu fas ren bu déwénee mu daw xanaa ñooñu dañ leen a yërëmul kon. Euh, la xaw ma foofu lan nga. dama ni maanaam jeunes yi ñëw di jënd fas pour dawal ñi ci bari dañuy daw ñii di décourager di bàyyi xanaa kon yërmande beeg fair play bi ñoom dañ ko gisul. Euh, Matar boo yoree sa fas te amuloo te joxuñu la prime prix prix tax. Mhm. nga mën a toog dawal sa fas dafay jafe nga téye ko te ma xamal ma xamal ko nag nit ñi nag yorewu fas du du du du du lu ndaw il faut avoir faut avoir les moyens pour mën a téye fas ñu développer course yi nag mu gën a jëm kanam nit ñi mën a dellu si waat loolu moom loolu daal moo fi ne moo tax ma nag encore une fois de plus nañ delloo bu baax njukkal professeur nañ ko delloo njukkal bu baax a baax te xam ne li ko soxal mooy na fas yi daw Sénégal jëm kanam ci wàllu course waaye moom defalul boppam li mu ciy ñàkk sax moo ëpp li mu ciy am. waaw loolu nag moom na ko ñëpp xam li mu ciy ñàkk moo ëpp li mu ciy am waaye nag mu doon koo xam ne aussi. ku mën a dawal yërmande te mën a muñ. muñ moo ko tax a ñëw ba fii ndaxte bu muñul woon kon bàyyi woon na waaye muñ la musa Sàlloo te ba tey moom moom mi mi ngi nii tey looloo ko indi ba fii tey. waaw te pomi nañu xam ne dafa sàlloo yaaram te moom mi góor gi kenn du wax fii diw daa sàlloo yaaram te doo ko ci tudd kenn gënu ko fair play ci Sénégal ci mbirum course kenn gënu ko nekk ay aji muñ ndax lan te ma wax leen nag ku ko bëgg xam dëgg. Matar ku bëgg xam professeur Thiam ma waxaat ko ba nga ñëpp dégg ko. demal ngay jàngi sóoratul asr di boo ko jàngee di nga xam kan mooy professeur Sakhir Thiam waaw hmm. ku bëgg xam professeur Thiam hmm. demal nga ubbi yëral sóoratul moo ko fa lan moo ko fa boole duma ko wax hmm. nañ ko jàng rek ku ko jàng ba xam surtout as lu muy tekki di nga di nga gis professeur Thiam Matar lii tam bëggoon naa la ko wax lu jëm ci euh, góor gi Madior Fall ndaxte man di Abdallah Fall jarbaatu professeur Sakhir Thiam ni taxaw ci tele bi dem ba jàppee ma bandi wala saay-saay ma bëgg xamal nag ne Abdallah Fall ak nijaayam seen diggante mu ngi mel ni nga ne suukar suñu seflem dara gënu ko tax te moom nit ngay mag teg ci bu la yàlla defalee gile ñaan rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin fexeel ba bokk ci almuttaqina imama dafa am solo te moom muy mag bu amee lu ma ko rusee mooy biddéew bi ko yàlla may moom mu juddoo fi Sénégal waaye di nes nesee bitim réew mu di koo xam ni dama ko rus ndax ñoo bokk di yëngatu fële ca daara ju mag jeeg di Cheikh Anta moo tax ma di ko xamal ne ko man mii de yar nañ ma moo tax ma di ko wax yile baat yar nañ ma te nee nañ ma bu ma tooy nee nañ ma mag bul weddi te bul tiiñal nee nañ ma mag fexeel ba bul diingat mag fexeel ba bul euh, tegg ay waxam moo tax ñu ne ma teg ci say sa euh, kaddu na ko sàmm sa wax na ko sàmm ñu ne ma it ne ma nag na nga fexe ba sa làmmiñ bu mu ñaaw te bul génnee it ci sa gémmiñ loo xam ne neexul yi nopp wasalaam kii nag ñu nekkal moom amateur course la yaakaar naa ni itam benn turfiste du ko gis di laaj kii lu tax muy wax ci course bi euh, il est de Louga njàmbur njàmbur bu baax la bu bëgg fas bu bëgg course mais nag da ci judd aussi parce que papam da doon yeew ay gagnant ñu dem ba mois de février doog ubbi course yi li ci diggante bi nu ngeen koy muñee. waaw Matar maa ngi sant yàlla. bi ma ñëwee ci sa émission bi ànd ak euh, suma xarit suma doomu ndey Abdullah mu am lu ñu fi indi woon li nga ma laaj nag danaa ci sawar laaj ko metti na trop que ñu dem ba février du ubbi cours waaye jàngat bi ma ci am mooy état Sénégal mi ngi seetaan cours yi seetaan bi mënta weesu nit ki am 2 pour cent nangu woo koo jox. ñu ni détawaay nga weeru dee nga ni da nga koy jox douze euh, million douze millions dawalul course euh, na ci état Sénégal dugal loxoom surtout maa ngi wax président Macky Sall mu jàppale g course hippique wax ak euh, ministre des sports bi Matar Ba ak ministre de l' élevage Aminata Mbengue Ndiaye ñu dimbali g bi ba wax ak LONASE au moins sax mu ñuy jox quarante million par mois ñu mën di dawal di fay fasi parce que soo demee ñàgg gis euh, xale yi nekk ci fas yi ñu ŋànk fas yi sa yaram bi day taw parce que danañ la condition danañ la poser problème bu nga xamee ni yow daanaka dootoo ñemee sax dugg ci fas li ko waral yëpp mooy ñàkk xaalis bi ñàkk xaalis beneen bi aussi danaa dégg nit ñi naan Matar dafay critiquer CNG bi man sama njàngat joxuma loolu sama njàngat lim ma jox mooy contraire bi parce que boo gisee nga bokk ci dara mu xawe sooxe da nga ci yuuxu pour nit ñi dëgg la li ma jàngat bi ma am au contraire président Cheikh Niang man aw ma dara lu ma koy wax xam naa ni mbir mi soxal na ko bëgg na ko mais xam naa ni yaa ngi koy dimbali dimbali bi mooy ngay wax ji ngay wax ci télé bi nit ñi defal da nga koy critiquer da nga koy dimbali parce que boo yoree dara euh, muy soxe da wut ku ci ku ci gindi surtout moog sama grand frère euh, Omar Diaw directeur de course dama leen di ñaanal yàlla kay lii ñu yor nii yàlla dimbali leen ba état bi gestantiku leen may leen doole pour course yi mën a jóg fi mu ne waaw loolu daal xam naa ni buñ ko defee euh, man nag xam naa ni course metti na ndax yor fas metti na parce que yor nañu ñeenti wajan parce que biddewu njaamur nday Fatim Ndiaye mi ko jur mi ngi Louga Magu Bas mi ngi Louga euh, Kumbis Jaw mi ngi Louga Ramatu Kumba mi ngi Louga ak jënd étalon teg mais limu ñuy coûter li ma la wax nii ndëri jaw mi ngi may dégg te xam naa ni du ma wax lu nga xamee ni du dëkk bi ñu ko calculer fas yi danañ ñu coûter trois cent cinquante mille par mois garab yi ñëwul. te dawaloo foo dara kooku xam nga metti na. Mhm. te liñ ci juddul yëpp benn nit ko jënd ci ñun muy professeur Sakhir Thiam kon su ko jëndul woon tey xamuñu fuñ jëm. Mhm. xamuñu fuñ jëm. Mhm. beneen bi tamit xale yi ngay wax ni dañuy ñëw ci course di daw li ko indi rek mooy ñàkk xaalis Matar moo tax mani ni euh, encore une fois président Cheikh Niang maa ngi lay gërëm di la sant gis naa ni nga sonne ci course mais dellul. nga wax ak ñi nga war a waxal wax ak ñi nga war a waxal mooy seet ni nga xamee ni boo demee ci ñoom waxtaan ak ñoom danañ la guider ñu fexe ba course yi avancé loolu daal bu ko defoon daal vraiment dana baax trop yaatal mbir mi toog di waxtaan ak ñi te moytandiku nit ñi nga xam ne dañuy ñëw naan ko diw de la compte diw nangam diw naan loolu c'est faux. c'est faux. man gisuma loolu man li ma gis président Cheikh Niang dama ko yërëm. maa ngi ko yërëm keroog bi ma ko gisee course daara. Matar mu ànd ak njabootam ñëw ma xool mu daw deux cent quatre kilomètres man ma jóge Louga daw quatre-vingts kilomètres aller retour bi rek maa sonn moom mu jóge romb Louga jëm jëm Dakar ma xalaat ni kii su ñëwee xanaa trois heures du matin lay si bu ñëwee est-ce que dana reer dana sangu loolu lépp mu def ko ngir bëgg course mais loolu su la ci yàlla nattoo nga def mu jiital la ci mbenn mbir da dem yàlla may na la ku mel na un professeur Sakhir Thiam am na xam-xam nga dem di diisoo moom premièrement sa mag la ñaar yéen a bokk mbir mi bu la kenn dox sa digganteek moom encore di ko wax tamit aussi sama grand frère Omar Thiaw toog leen di waxtaan ak Saxiir waxtaan ak moom ñu seet fu course yi a avancer ñu dem fa. parce que metti na man yërëm naa surtout xale yi nekk ñàkk. entraîneurs yi ak jockey yi dama leen yërëm parce que boo demee ba fekk leen ci situation bi ne sa yaram bi day daw. di ñaan encore une fois propriétaires yi bu ñu taw nañu ñëwaat mbir mi metti na mais buy neex na leen fi fekk loolu daal maa ngi koy wax mais mais mais yéex a ubbi gi ma yéen amateurs yi nu ngeen ko yëgee. metti trop ndax euh, parce que man dimanche bu jotee chaque weekend damay dem Louga mais su dimanche jotee su may jógee Louga ba romb Thiès rek presque damay sama xol bi day jeex parce que man xawma duma du ma seetaan football du ma seetaan basket du ma seetaan làmb benn sport la ci àdduna muy course hippique euh, bu ma romboon sax fas romb ma di dox damay taxaw xool fas wi kon suñu demee bu course yi yeexu ubbi xam naa ni xëy na sax du coobere euh, euh, président Cheikh Niang parce que bugg na kii mais ñàkk xaalis a ko waral parce que xam naa ci dara xam naa ci dara man xam naa ni ñàkk xaalis a ko waral ñàkk xaalis bi moo ko waral waaw di wax nag gouvernement bi ñu taxaw ci Macky président Macky Sall su ko yàlla maye ku mel ne un Salam ñu yàgg ànd ak li Salam xam ci fas su xoolee course yi sooxe na woo Salam ni ko waaw Salam man seen seen kii bi nga xamee ni dama gis mu sooxe dama bëggoon nga wax ma nu ñuy def ba mu jóge ci situation bi man xam naa ne salaam dana ko ko wax mm-hmm. man xam naa loolu. ëpp na ëpp na ëpp na man mosuñoo tase te néew ma seen course yi bu ma bëggee tooñ sax danaan ma dimanche bi fu ngeen di dawale. Mhm. te fekk course dawul xam nga loolu neexul. waaye nañu ko jege. waaw jë ku jara jege la. Mhm. parce que buñ ko jegee xëy na bu waxanteeg président Macky Sall. dana ci jéem dara mu wax ak Matar Ba wax ak Aminata Mbengue Ndiaye surtout nag euh, madame Aminata Mbengue Ndiaye na dimbali borom fas yi aussi ci subvention. parce que Matar foo foo foo takk métit bi ci ñu yor fas ëpp na. leen loolu nag dinaa la ci dugal tuuti élevage at mu nekk am na aliment boo nga xam ni mi ngi koy may fas yi xëy na borom fas yi ñoo ci jotul mais loolu moom mi ngi am ci lu wér élevage day may borom fas yi aliment. waa loolu su fekkee mi ngi koy def te gisu ci ku gisu ci ku ci gërëm wala dara waaw mais nag bu koy joxeeti nit ñi na woo télévision bi ni leen génne naa tant de tonnes d'aliments maa ngi koy jox diw laa koy teg ci loxo lu côté def loo moom moom mi ministre bi na ko def ah. kon sant naa la gërëm naa la waaw defe naa li li nga wax doy na wala dafa am leneen loo bëgg a tàggatoo daal. waaw léegi maa ngi gërëm li tax ma ñëw fii mm-hmm. di gërëm suma doomu ndey bi Abdallah parce que li ñu indi fii ku ci ne xam na sama digganteeg professeur Sakhir Thiam. maa ngi ko commencé supporter ci jàmbalaay 2 euh, booba fas yu ma gënoon a marqué ci àdduna mooy mystère mystère mais bi ma gisee jàmbalaay 2 laa ko kii bi booba maa ngi koy gis mi ngi yore benn cent 504 bu bula la daan ñëwee ci course ma nekk xale euh, ma supporter ko ba fi ñu toll nii 80 ba nëgë ñi suma changé di supporter keneen di gërëm aussi Abdallah jarbaatam bi nga xamee ni nit ku baax la yàlla boole ñu di gërëm aussi président Cheikh Niang di la gërëm yow man Matar suma ma soñoon président Cheikh Niang dalay woo parce que li nga koy defal nii ci télé bi da koy encouragé man gis naa loolu di gërëm aussi sama grand frère Omar Thiaw ak Major Diak ak surtout sama xar benn bakkan Aster ak Jili Rakkam euh, di gërëm aussi Baye Pël Euh, Omar Diak parce que dimanche bu jot mu bëgg maa door ci kursi <laughs> dimanche bu jot bu ma ko rawee mu bëgg maa door <laughs> di gërëm aussi Major Diak mm-hmm. di leen xamal ñoom ñëpp samay mag lañ mais ki nga xamee nag moom laa gën a bëgg gërëm mm-hmm. mooy Omar Bawa Junior parce que xam nga li tax dafay def chaque année suñu tasee rek bu ma tëkkoo rek ma raw grand prix chef de l'état <laughs> bërki démb maa tëkkuwaat ci ci téléphone ñuy waxtaan mu ne ma ren ngay xam. ma ne ko alhamdulilah bi nga ma ko waxee soo ma ko waxul woon du baax ci man <laughs> ndax at moom mi jot boo ma boo ma tëkkoo rek ma grand prix maa ngi ko ciy gërëm di ko sant uh-huh. Matar vraiment jërëjëf. merci merci merci Moussa. ginnaaw bi ñu dégloo ab Abdallah Fall déglu Moussa Ndiaye Moussa wax na lu am solo kilifa day fatt ay noppam te fal bëtam course hippique bari na trop demale fekkale ñëw bëgg nit ki may la dara nga nettali ko ci nit loo nga xam ne dara du ca dëgg walla bëgg nit ki koyel la nga nettali ko ci moom loo nga xam ne dara du ci dëgg bu ñuy nettali mënta bàyyi nettali ñi ñuy nettali nañu bàyyi gëm parce que mbooloo dañu war a nekk benn ànd ànd bu rafet mais bu fekkee loo dégg ci sa nopp bi gëm ko sa kilifteef du mën a yegg mukk fa mu jëm kilifa bu bëggee mat day fal bëtam te folli ay noppam nettalikat yi yéen bàyyi leen li ngeen nekkee ci biir course yi milieu bi xat gi mu xat yëpp yéen a ko xatal ndax ku fi ñëw ngeen sosal ko jëmale ko ci kilifa yi kilifa yi xool ko yeneen i ba ba dootu fi mën a ne ngir yàlla ngeen gëm ni nit ku ne yàlla moo ko yor ki nga nettali mu may la junni junni boobu benn fan nga koy lekk mu jeex desag yàlla kon nanu gëm yàlla te yaakaar yàlla jërë ngeen jëf ba beneen Sangomar ci même chaîne 2STV merci beaucoup